na ko Cheikh ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97 point cinq seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi tey nag ñu invité euh, Ousmane Diop waaye ñu gën koo xam ci Mara Diop mu nekk responsable politique APR ci région bu Diourbel département Diourbel ci commune bu Ndindi mu nekk tamit euh, membre ci conseil économique social environnemental moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllum actualité politique Mara Diop wala Ousmane Diop ñoo ngi lay nuyu. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi Réew mi FM maa ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ngeen may ma tuuti ñu ziyaare euh, ci màggal gi ñu jóge muy màggalu Kazu Rajab doon taarix ci yoonu murit euh, alaaji Fàllu Mbàkke kenn ku ne xam na ko liggéeyam bu sell ci Touba ñuy koy ñaan euh, sëñ Abo yàgg ko taxaw ci wetu sëñ Muntaxa euh, di sant di gërëm mboolem umm-, umma islamique bi yëpp waaye di la sant Abdou Khadir di la gërëm bu baax ci dalal gi nga xam ne dalal nga ñu ko ngir ñu war a waxtaane mboolem actualité boo xam ne dina jariñ walla dina leeral ci askanu Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sann Uh, Mara Diop la ñuy wax wala Ousmane Diop. Euh, waaw Mara Diop bi mën nañ ko wax euh, ñi uh, ma xam ñu bare bare bare bari Mara Diop ndindi bon Mara bi surnom la man sama turandoo mooy chef de village bu ndindi euh, ñu tudde woon ko kilifa gu mag muy sëñ Ousmane lu bari ñu mu nekkoon ci ji nag ñu bari Ousmane yi bari moo tax ñu doon ko wax Mara Euh, waaye nag euh, Mara Ndindi moom ñi ñëpp ku ma xam-xam ne sama dàkkantal ni ma mel ma Mara Diop Ndindi la ni ma mel ci Ndindi ak ni ma fonke Ndindi ak ni ma bëgg Ndindi moo tax sama surnom ñu tudd ci Mara Diop Ndindi waaye Ousmane Diop mooy tur bi jërëjëf euh, Mara Diop Ndindi li ñuy doore nag waxtaan wi mooy xam nga ne bërki démb Euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye Niang ñoom ñaar dafa am benn atte boo xam ne dafa dox seen diggante ci lu jëm ci vingt-neuf milliards yu Prodac yi euh, keroog alxamis dañ leen a convoqué woon tribunal ngir ñu layoo ci biir loolu avocat yi sonk yi ñoom sàkku ñu daal di dàq li nga xam ne mooy boobu lay atte dàq nañ ko ba fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bi Ousmane sonk di ñibbi gis nañ li nga xam ne moo am am na mbooloo moo xam ne ñoo ko topp waa BIP di waa police dogale ko ci mujjantal gi si la ñu euh, toj para euh, vitre nu euh, portam génn ko dugal ko ci seen oto blindé yóbbu ko këram ban jàngat ngay def ci Ousmane Sonko Mame Mbaye ak àtte bi ak li xewoon alxamis bi ñu génn. waaw jàngat bi ma ciy def jàngat bu simple la man de dama jàpp ne bu nit ki amee dignité ak worma. ak lu toll ni nga euh, Mame Mbaye Niang c'est ministre de la République euh, yàlla def président de la République dénk ko ab poste de responsabilité poste de responsabilité boobu benn projet nekk ci euh, moom Ousmane Sonko mu yëkkati kàddu ne épinglé nañ Mame Mbaye Niang ci vingt neuf milliards yoo nga xam ne da da da koo luubal vingt neuf milliards yooyu dama jàpp ne ci suñu réew mi fii ñu toll am na fu ñu ko soxlaa raison pour la laquelle euh, dama ne loolu man sama objectif bopp dama ne loolu na leer d'abord parce que Mame Mbaye bu fekkee ne euh, doom ay doomam ñi ngi fi ay jabaram mi ngi fi ay njabootam ñi ngi fi tuuma ju mel noonu ñu teg ko teg ko ci daram yoon la mu yóbbu fa mbaxana yoo doone benn pour mu leeral ko Ousmane Sonko nag day déliré man jàpp naa ne de boo demee ba yëkkati kàddu ne kii euh, ak fi mu ne foofu la njàngam toll fi ñu ne foofu la dayam toll fi ñu ne foofu la xam-xamam ci wàllu gestion toll lii day day wane ne à chaque fois day wane kan mooy Ousmane Sonko ci jëmmam. c'est-à-dire c'est euh, nit ku foo ki mu doon lay wane à chaque fois parce que man bu ma la tuumaalee Abdou Khadre ne la man kat def nga lii. su suñu ma woowee du ma xaar sax ñu di ma woo may may may may appel may woo askan wi naan leen kaay leen dañu ma woo maa waxoon nangam xëy na aw ma ca ay preuve kaay leen jàppale ma pour influencer nit ñi loolu laa gis mais nag bu ma doon bu dee manam ma dem damay yóbbu samay preuve teg ci table. mais mais Mara yow avant Ousmane Sonko di ko wax déggoon nga ñu ne Mame Mbaye Niang dañ ko épinglé ci vingt neuf milliards. mais Mame Mbaye Niang buñ ne bu buñ ne kàddu Ousmane Sonko ak kàddu ña ko wax bokkuñu Ousmane Sonko buy wax opinion nationale internationale dañ koy déglu. ko qu'on dire nga bañal ko ko nga nangul ko ko Mame Mbaye Niang politique am yëmut ci fan yi ñu teew rek. dàpp naa ne war na mën a dem ba leneen ak leneen ak leneen ak leneen mu mu jiite fi yeneen ak yeneen léegi nag opinion nationale et internationale di wéy ñu naan ki épingle na ko mu toog di xoole di di di man. mais mais gis nañ Mame Mbaye Niang moom waxoon na fi ne rapport am na Amadou Ba moom waxoon na ne ñoo ngi doon def rapport ba am loo xam ne dafa fuité même Amadou Ba waxoon na ne Mame Mbaye Niang si boppam moo sàkkoon enquête boobu aussi. waaw léegi léegi loolu. Mame Mbaye Amadou Ba wax na ko Mame Mbaye Niang wax na ko Ousmane Sonko wax na ko mais bi ko Ousmane Sonko waxee Mame Mbaye nee na ko nag ma indil preuve li may sàkku ci Ousmane Sonko na ko yóbbul preuve bu ko yóbbulee preuve yi man en commençant partisan Mame Mbaye Niang ci lañ bokk ndax ñoo bokk benn coalition bokk benn parti en commençant par man bu ko yóbbulee preuve maay njëkk ne nañu jàpp mambay Mbaye Niang tëj ci kaso bi parce que 29 milliards dañu ko soxla. leneen li ci des nag di rafetlu bip ak di rafetlu sécurité Sénégal ni mu demee parce que nag euh, li tubaab yi di wax lii kenn ëppul doole luy yoon. yoon bu jëkkee tag jaar sa biir kër gi nga xam ne yaa ko moomal sa bopp yoon day lay may kër gi ñu yoon yoon yoon day sàkku ne kër gi bu bu ci jaaree ci biir kër gi day sàkku ne kër gi kat amatoo ci droit loolu yoon la donc ma di leen ci félicité di leen sant bu baax di leen wanne ne vitrine bi non non non non ne n'est de la loi tey bu fekkee ne Abdou Khadre yàlla def na yow moom avant ñuy toj vitrine am boo nañ ko téléphone ne ko ubbil sooto oto. am na sañ-sañ dem dikk. déet am am am na sañ-sañ dem dikk. ak li nam man joguma fii di dem kenn arrêté ma ne ma jaaral ni parce que wóotewu ma ci al kaara kaaraange réew mi dañu toll foo xam ne mobilisation ak di dajale nit ñi dafa toll foo xam ne ci réew mi fi ñu toll nii. mais def mais bu ñu paree bu ñu waaw naa d'accord d'accord naa ko barki démb. def nga ko barki démb ah, ci mais ma koy def. waaw bu ma koy def. waaw ma ne kaay leen ñu ray kaay leen ñu rayanteeg force de l'ordre bi wóotewu ne kaay leen ñu xeex ak. police yi woote wun ne kaay leen ñu influencer nit ñi pour ñu agiter pour jàmmaarloog askan wi. da ngaa dégg loolu. lay wax à chaque fois. à chaque confrontation confrontation résister. la mooy la constitution moo ñu bañ. waaw d'accord ñu bañ ko ñu noot. Abdou Khadre Abdou Khadre dama bëgg sénégalais yi xam dëgg dëgg dëgg dëgg objectifu Ousmane Sonko. lan mooy objectif objectifu Ousmane Sonko bañ na ko ba. alhamdulilah ñun ci suñu wàllu bopp maa ngi ci sant ñu ngi ci sant yàlla parce que à chaque fois que mu wax rek sénégalais yi dinañ xam jëmm ji wax kan la ndax barki démb la kenn ci seen i kàngam man xaw ma leen xaw ma ci kan la ci rax kenn ci seeni kàngam yëkkati kàddu ne wan dëgg-dëgg seen objectif ne ñoom teg Ousmane Sonko objectif u Pastef teg Ousmane Sonko ci réew mi moo ci gën a tuuti donc dafa dañuy dañuy rappeler nag la xewoon Mali tey da ngay gis ne tey ñoom ci seen ci seen naataango yi ñu am du ma dugg ci ci ci ci ci ngëm-ngëmu bo jàmbur man li ma gëm-gëm naa ko mais ngëm-ngëm dafa am do solo ci doomu aadama dina la yóbbuloo foo xam ne yow sa jëmmi bopp da ngay jàpp ne xalaat ne lii boo nekkee sa sago doo ko def ngëm-ngëm boobu nag dafa foor ci doomu aadama si ñoom la xewoon Mali ci seen ngëm-ngëm ñoom ñi ñuy li ñu gëm ba ñu demee ba am influence te dëkk booba dañu dem euh, dindi kiiraangeel way euh, kilifa ya fa nekkoon ya fa nekkoon doon jaamarloog lislaam taxaw ci taxawaay bu am solo gëm seen gëm-gëmu lislaam taxaw leen bañ la ñu def ñu doon ñu doon ay héros foofu kero bañ fa amee doole dañoo dem di sulli seen i bàmmeel objectif boobu la ñu am ta ñoom ndax boo gisee li ñu visé muy Touba muy Tiwaawoon muy Njaasaan muy ñëpp kenn ku xale yi nga xam ne ñu ngi toog di fréquenté Ousmane Sonko koo ci waxal gëmatuñ gëmatuñ sëriñ soosu donc objectif bi ñu jom mooy dinañu fekk yow si sa ngëm-ngëm ñu dindi sa ngëm-ngëm boo xam ne nii tey ëllëg gëkk si biir sëb sëriñ dana la wax nga ne déedéet. waaw mais yow sëriñ soosu ngay wax Ousmane Sonko da si am i wóolare jaxasoo ak ñoom rawatina fu ci mel ni Touba. Euh, ak feneen euh, dëgg la sëriñ si dañ ne si ay sëriñ ñiñ ña ay sëriñ du ma ne sëriñ sëriñ boo dikkee si sëñ mun da nga ko fekk lu dul jaamu yàlla gëm sëriñ Touba nangu li ko xam ne nii sëriñ Touba defal na ko ko mu di ko mu jam ca kepp nga dem Tiwaawoon euh, xalifa ba noonu nga dem Njaasaan xalifa ba noonu mais nag am na ñoo xam ne du ma ne du ma ne du ma ne du ma ne lañ parce que sëriñ boo ko fekkee tey la nga xam ne moom la taalibe yi xem xem taalibe yi sax bañ nañ loolu moom mu wëlbatiku di defee loolu kooku jàppewuma ko mu dib sëriñ ñi nga xam ne dañu da nga ne ay xarit lan ànd ak ñoom d'accord sa xarit boo ko amee mu nekk ci lu du duloonut yoon wax ko ko mais nag bu fekkee da ngaa gëm Serigne Touba tey ànd ak Ousmane Sonko ci li mu ay kilifa wax na ko Cheikh Thioro barki démb li mu wax nga defee loolu ab julli ab ab ab murit bu gëm sëñ Touba ne ku fekk ku ku liggéeyub Serigne Touba bi ku mu fi fekkoon te te te te jàppoo ci liggéeyub Ousmane Sonko bi bu la fekkee zéro moom zéro yam loolu ci taalibe nga di ko wax ñu ne yow ci dereti Serigne Touba nga bokk moo tax. mais maa ngi remercier Baye Fall bi dëkk kanadaa li mu ko wax muy lu am solo te kooku ku ko xam-xam ne tey démb ak bërki démb moom euh, ñun dañu doon attaqué donc kon bu taxawee Cheikh Thioro Mbacké wax loolu gàcce la ci moom. waaw mais Ousmane Sonko du Cheikh Thioro ak euh, ñi koy jàppale sant Mbacké ci wàllum politique am na yeneen kilifa ci Touba yoo xamante ni ay wëllëre Ousmane sonk la. waaw kilifa yooyu man du ma ne man mën naa nekk ak yow sa wëllëre. waaye sa gëm-gëm ga nga gëm ci politique du ma ca ànd ak yow. léegi léegi Ousmane Sonko bi ñu ko jàppee. Euh, dañ ko dugal ci oto blindé yóbbu ko après ci ngoon gi mun a day demi defi conférence de presse ci siège am ñu ne ko doo génn si tëkkër góor gi loolu tamit am na ñu bari ñoo xam ne ñaawlu nañ ko ñu si mel ni docteur Abdourahmane Diouf ku si mel ni Aminata Touré waaye Y'en a marre euh, ñoom Seydi Gassama euh, ñoom Alioune Tine ñoom ñëpp ñaawlu nañ ko jàpp ne àq ak yelleefam dañu ko daal di salfaañe ñoom dañoo war a dellu ci àq ak yelleef yi nga xam ne doomu aadama yi am na ko ñu war a dem di war a dikk war a dox war a wax Ousmane Sonko seul bu fekkoon ne day jóg dem def permanence am point de presse kenn du ko ko interdit mais day jóg bëgg a barrer circulation bi bëgg a empêcher nit ñi ñu dox réew mi dafa am loon nag gis nga Seydi gasamaak ñoo ñu di wax nañu bàyyi seen naaféq gi duma ma ko du leen wax ne sax kii parce que am na loo xam ne naaféq laa ko teg ndax boo fekkee màggat moo xam ne nii tey poste ko tax a jóg yére ba ko tax a jóg lenn lu ne Mimi Touré lu ne daj na ko pour am poste ci parti bi bu ko daj bu bu fekkoon ne amoon na confiance président ba tey troisième candidature bi ñu ngi ñoom ñu ñu bëgg ñoo wax ne troisième candidature te muy deuxième quinquennat moom ci ñu koy porté ci la bo moom Sénégalais du leen ko may. waa d'accord waa d'accord waa d'accord dama ne. loolu Mimi Touré bu fekkoon ne la mu gëm gëm na ko loola. moo koy porté ki ki ñu koy porté may ma ma ma tontu sa question boobu ndax parce que dañu toll foo xam ne nit ki bu bëggee dem nañ ko may circulation mu dem dikk Ousmane Sonko bu doon jóg fii di dem day woote mobiliser wut indi ña nekk Ndakaaroog ña nekk fe ne leen ñëw leen ñu àndandoo dem bari circulation bi mais am bi la ka nga xam ne dafa feebar wu ñu war ko jëlee fii yóbbu ko Ousmane Sonko di fi jaar baare bañ koy baare mën na ci ñàkk ba kanam keneen ka nga xam ne am na yitteem yoo xam ne nii moo ko gën a ñor yitte yu baare bañ koy jaare mën naa yitteem yooyu man na ci réew mi dañoo toll foo xam ne il faut force de l'ordre bi jël seeni sécurité jël seen i défense comme niñ ko defee barki dem képp koo xam ne gis nañ ne war ngaa mën a teg ak yoon nañu la baare nga teg teg yoon woo. mais yow Ousmane Sonko bi biñ koy tere na doo dem sa sa siège pour def conférence de presse mais jamono jooju bàyyi nañ Mame Mbaye ak ñi mu àndal benn bokk yaakaar dem ci seen chaise ñoom di fa defee conférence de presse loolu la ñenn ñi seen xel li mënut a nangu jàpp ne ak jaay doole la ak par Mame mambay ñaa bi muy dem chaise am di def point de presse benn otoom la yor dem baariwul kenn ñeneen ñi ba dem point de presse am seen benn oto mobiliser wun woote wun instruction woote wun nit ñi dañoo ñëw leen ñu dem ngeen gunge ma kenn ku ne Mame Mbaye mën naa ba muy dem oto mën naa daw sans ba dugg biir permanence ba. Ousmane Sonko bu doon dem responsable yi département Dakar gépp lay woo. ci biir këram mais mais loolu nag dafa am moment boo xam ne dañ ko autorisé mu def ko am moment boo xam ne autorisé guñ ko mu def ko. mais ñi koy moom moo leen wo woo na leen bàyyee woo nga gis bu leen bàyyee woo kenn dutu ko topp. su ñu leen bàyyeewoo mën nañ ko bàyyi muy dox yi soxla ma damay rafetlu force de l'ordre di leen encourager di leen wax ne muy ñun muy keneen ak keneen a ci yam képp koo xam ne tegg na ci yoon la nga xam ne yoon may na leen ko pour ñu def ko nañ ko def. mais yéen euh, ndax keroog bi ngeen teree euh, Ousmane Sonko mu euh, def midinam ci Mbàkke ab àjjuma ngeen ko teree sa samedi ja yow responsable politique APR nga ci département bu Diourbel Pape Moudou Fall ma nga woon sa Diourbel ca samedi di def kumbuteem na mu ko bëggee man maa nga woon jur maa nga woon lindi Doudou Ka ma nga woon Ziguinchor di ko def moom na mu ko bëggee yéen ngeen bëgg koo xañ Ousmane Sonko loolu mooy deux poids deux mesures euh, euh, loolu lu ma ciy wax du bari ndax tey bu demee ba bëgg laa dénkum réew nga ne am nga euh, intention yor réew mi nga am say liyat na soit mën nañoo nekk député mën nañoo nekk leneen ak leneen ñu représenté la ci dëkk mënuñoo bind ab autorisation bu mat kooku moom jar naa seetaat ñoom bu seen autorisation tegoon l'administration bii nekku fi Jean nekku fi Paul nekku fi qui que ce soit képp koo xam ne bind nga autorisation mu tege ci yoon ñu autoriser la. képp koo mais man man barki démb bi may def sama réunion politique rek dama bind sous préfet. mais mosoo te mu sous préfet est-ce que sous préfet mosoo laa tere benn yoon rassemblement. mais def naa ko mu tere ma man. def naa autorisation sous préfet bu nit ñi ne ma booba du bii sous préfet sous préfet bi fi ne woon bi ma ne ma te autorisation bi amoo ci droit def ko dama ko baa te booba ñu ngi ci parti pouvoir kon donc l' administration la nekkewun ñoo fi nekkoon ci ab Abdou Diouf nekk fi ci jamonoy Senghor ñoo fi nekk ci jamonoy Abdoulaye Wade suba ñoo fi nekkaat ku fi man di nekk. d' accord dina ci ñëwaat ci ci ci mitinu Mbàkke bi ngeen tere ak jàppante yi amoon Touba euh, wala diggante Touba ak Mbàkke wala biir Mbàkke mais yéen procès Mame Mbaye Niang bi. Euh, Ousmane Sonko dafa jàpp ne da see bëgg a jafandikoo ngir tere ko mu bokk ci élection présidentielle 2024 waaye nee na loolu na ngeen ko tàyyi. xanaa bi mooy troisième troisième euh, troisième fois mu ne procès am am xam nga nit ki bu fekkee liñ naan wolof danaan wax kat dina wax ba làmbutaatam ni lii du sama wow looloo daal dal Ousmane Sonko euh, su génnee wax rek maanaam tey bu doon fukki wax juróom-ñeent yi yëpp boo ko seeteew ci lay doon dara du ci doon dëgg lépp boo buñ ko nit ñi doon topp di ko yóbbu ci yoon kon ndëgë ni bët bu set day baagante di dem yoon na bàyyi nag heure su waxee wu ne weng ñu tara ñu ñooña tey gis te seen bopp dem yóbbu ko fa maxana ne a benn mu ne dañ cee ko pour jàpp ku bëgg tere gis nga fii bala ngay jot réew mi dañ lay càmbar ba nga set wécc xool la ba nga yelloo ne war nga ko mën a jot sénégalais yi ubbi seen bopp nga teg ci seen loxo lu leer naññ sénégalais yi ubbi seen bët doog lay jox réew mi Ousmane Sonko kenn terewu ko pour mu dem élection bu déposé jotee man naa déposé kenn nit mënu koo tere pour mu dem élection waaye nag na fekk ne tey sart ya nga xam ne mooy dem élection waree na ko président Macky Sall géew bi li mu wax leer na làmb jaa ngi nii ku bëgg a bàkku na bakku moom du tere moom amul droit ni diw du dem élection moom président Macky Sall ko keneen amu ko droit constitution bi moo am droit ne diw mii mooy dem diw mii demul lam joteeg Mame Mbaye nag dafa tuumaal Mame Mbaye Niang Mame Mbaye yóbbu ko ci yoon am na beneen plainte bu ko ci topp benn gendarme mais li gën a garaaw tey bu ma dikkee ci Abdou Khadir mi jël fi confidence def ko jox la ko am ko am Abdou Khadir war na ma suturaal ci sutura soo xam ne nii tey ëllëg lu man di xew dana mën a ma sàng sutura waaye nag boo waxuma ca dara waaye nga di ma boole di ma sosal non loolu ku ko gën a garaaw amul. procès Adji Sarr nga ne dañoo sukkandiku ci projet procès Adji Sarr procès gendarme bi nga ne dañoo sukkandiku ci procès gendarme procès Mame Mbaye Niang nga ne dañoo sukkandiku ci procès Mame Mbaye Ousmane Sonko na bàyyi dériréem ci. te ji yoon. est-ce que tiitalu leen. non munuñu tiital. parce que nag munuñu teree nelaw ndax xam nga tax. Euh, bu ñu yëngutoo rek ñu xam ne yëngutu nañ boo gisee li xam Ziguinchor ki dem gis li xew cees gis li xew dakaar gis li xew Diourbel yi nga xam ne ay leader ñoo ko fiy def ku ci mel ni Pape Modou Fall gis nga lim def ki dem man la ma def daam Diop barkaati démb li mu def keneen ak keneen la ñu def ñu tiital gis nga fii coow lee fi bari rek mais kenn ku ne xam na ka man sa pap waaye nag bu bu bu bu jàkkaarloog sa pap nga ne sama papa man ndax da koy sàng sutura rek. mais yéen euh, Mara euh, yéen. dañu gis ne Ousmane Sonko dafa mel ni moom rek ngeen def seen adversaire seen communication bi yëpp presque si Ousmane Sonko la ba ñenn ñi jàpp sax ne tey fi mu yegg tey euh, ñenn ñi sax ne nañ président Macky Sall mooy directeur de campagne <laughs> loolu dañoo juum nag dañoo juum ndax bu ñu jàpp ne Ousmane Sonko communication bi muy def moom moo koy defal boppam dañ ko multiplier par zéro ndax tey yenn ci journaliste yi ñu toog ñu yaa ngi ni posé nga ma question Ousmane Sonko dama lu may def dama du ma ci répondre. mais bu ñu nekkee ci suñu actualité politique. di dem déedéet déggoo la waaw mais yéen yéen yéen yéen ñu ciy posé bu ngeen noppee di ñu ci bàyyee posé rek. ñu ñu ñu ñu ñu métier ba pare posé rek parce que gis nga politique gis dox la ak wax. soo mënta dox mënoo wax jarul ngay def politique. mais Ousmane Sonko loolu la nekk. waaw léegi nag lu ñu ni ci loolu lañ nekk mais bu ñu toogee tey ci benn émission wala ci benn euh, point de presse. benn journaliste yëkkati kàddu nañu mbirum Ousmane Sonko nangam ak nangam loo ca xaw dañuy toog di ko xool dañ ciy wax réalité ba parce que journaliste yi ca maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que tax na ñu bare bare xam kan mooy Ousmane Sonko am na question yoo xam ne yéen a ñuy gën a xam ne lii muy teg du tegul ci yoon waaye nag da ngeen ci bëgg opinion nationale ak internationale am la vraie version moo tax ngeen ñuy poser question yooyu. mais mais mais euh, Mara Diop yéen. Euh, da ngeen a organiser Ousmane Sonko dafa organiser meeting Kër Massar mbooloo mu baree bare baree bari teew fa yéen ngeen organiser meeting yéen gouvernement bi yéen benn coalition benn bokk yaakaar te Kër Massar Pastef rek la woon. yéen bi Pastef de non Pastef national. non Pastef national. Pastef national mais parti Pastef rek la quand même. du coalition bi ñuy ñëw Touba gi waa Bignona ak waa Casamance ak ñëpp ñëw ñoom fu ñu jëm. dañuy dañuy dañuy organiser wu au niveau national kenn ku ne wuti kaar jëm jëm fa. léegi yéen léegi yéen mitinu bi tere bi ngeen ko tere keroog jàppante am na ban gis-gis nga ci am. jàppante li ma ci li ma ci gis gis-gis bi ma ci am ñoom jàppante boobu xeeboon nañ ko. quoi qu'on ñan si ñoom waa Pastef jàppante boobu xeeboon nañ ko lool lool lool lool lool la ñu seen objectif force de l'ordre bi da leen ko empêcher du woon rek ñu ñëw def meeting def nangam parce que nag bu nekkee réew yoon lañ ne nga def sa autorisation ñu interdit la waroo nga nga nga jàpp ne ëllëg war nga mën a diriger réew bu fekkee defar rek moo la tax a jóg waroo baare waroo ne dama koy def par force. bu fekkee ne loolu président Macky Sall defu ko 2012. non président Macky Sall préfet euh, Diourbel bi gis nga. mais président euh, booba booba booba booba booba maa ngi yoon ci maa ngi ah, woon ci yëf yi. Ah, boo déglu lu ma wax booba préfet de Diourbel. dama la koy wax ni mu demee. préfet de Diourbel booba ma ci jamono yi fi nekk. bindul ne ma président Macky Sall bu mu am interdiction ci dëkk bi. waaw ndaje mañ doon def daf ko interdit dañ koo baax. mais ñëw ga nga xam ne da ko doon visiter ci nit yi ci Diourbel ci Diourbel ah. bi mu ñëwee di visiter ci Diourbel déedéet dooful caravane mais ñetti oto la yoroon booba maa ngi ci woon ci biir bu visiter nit ñi topp déggoo li ma kenn topp ko woon moom bañ na topp ko moom dafa bañ ba defa bindoon lettre circulaire boo moo génn naa la ko wan ne bu kenn mobiliser bu kenn ma topp damay dem ci sëriñ diw ak sëriñ diw parce que samay wóllëreel ba pare dëpp ñibbi sëriñ yooyu lañ ko bëggoon a tere déedéet bëri policiers yi liñ doon bañ lañ ñu waxit lu leer la bëgguñu insurrection ci dëkk bi. waaw nañu def nii nañu def ne. ñu baare ko de ba ñu ko baaree. mu jàll. felut jàll de. loolu la wax déedéet felut jàll. koo kii ba maa nga woon ci biir. lan la def maa maa nga woon ci dañ koo bàyyi mu jàll. <coughs> maa ngi excusé wu ba mu demee ba bañ bañ ba mu demee ba leer gars yi ne fii la jëm dañ ko bàyyi mu jàll mais fe felul benn barrage président Macky Sall ku ko xam-xam ko ci yaram xam ko ci tegginam xam ko ci jox wormaam nit xam ko ci respecté it aussi li nga xam ne ni ay sart la ak règlement yi nga xam ne réew mi teg nañ ko. mais li xew keroog euh, Touba ak Mbacké. foofu laay jëm foofu laay jëm autorisé woon marché bi li xew keroog. foofu laay jëm foofu jëm lu toll nii dëkk bu ñuy dëkk bu sell bu ñu bu ñuy wax Touba ak Mbacké nga jël ne da ngay mitin ñu interdit la nga ne dama koy def force. te kenn ku ne gis li mu def kero ci jumaa ji def ko ci biir kër biir biir Touba te sëñ Muntaxa Bachir ñi di ko ñaanal mu yàgg fi woon wax ne bëggatuma benn yëngu-yëngu ci biir dëkk bi kooka objectif am dëgg dëgg dëgg du woon rek ñëw dem tey boo gisee ci jumaa ji lam fa def lam wax mu ne fa weng. lan la dëgg bari na gis nga ko. non ñu yor jumaa ji nga ko ñu yor jumaa ji moom nee nañ charte yi dégg dégg ma ne. non mu xam ne ma ne ma ne ñun xam nga ne Touba la dëkk. waaw bokk naa ci staff bi lu toll ci juróom-ñaari at. règlement yi fiy dox yëpp xam naa ko kër yi fii kii yëpp xam naa ko leneen ak leneen ak leneen ay murit lan sëriñ tubaal lañ gëm sëñ Cheikh Madou Lay moo nu yaat ban toll nii ñu toll dara ñu ci dëkk bi bu politique jotee mën nañoo politique kenn ku ne am na foo ku cay wax waxe woog sa bakkan leneen nga tax ngay wax déggoo li ma la wax dama rek ku cay wax waxe sa bakkan nun dañuy politique léegi lan la fa def lu fa wartu def bi mu génnee ci jumaa ji taxaw bi mu taxaw sëñ sëñ Cheikh Mati Lay musta daa nangu sax bisu bisu ajjuma boobu sëñ Muntaxa kii kii bayal bi wax na ne sëñ Muntaxa nee na bu ñuy otoom bi ñuy wër naan jërëjëfa sëñ Tuubaa nañ ko bàyyi fii yàlla rek lañ fa war a tudd te muy lu rafet lu sell loo xam ne umma islamique bi yëpp kenn ku ne xam ne sëñ Muntaxa diggam ak suñu borom waaye kenn ku ne xam ne ngëm-ngëmam ci sëriñ Tuubaa fan la toll donc kon bu demee ba yëkkati ñu jëm ci jumaa ju sell jooju nga xam ne Serigne Touba dañu ko fee bàyyiloon doxoon ko ndigal ñu toog ko ba toll ko ba def lii amul benn dërëmu kenn bu ci dem bu lu taalibe yi dajale ko def ca boo dikkee foofa di yëkkati yenn kàddu yi ngay yow yaa excité parce que ña ñëw ca jumaa ja dëkkuñu biir Touba de bari na ci ñoo xam ne dëkkuñu biir Touba de. lu tax Seex Coro nee na am na ñu jóge Bignona Seex Coro nee na am na ñu jóge Casamance. moo ko wax. su ko di ma moo ko wax nee na am na ñu jóge Bignona am na ñu jóge Casamance am na ñu jóge Fongolemi. fan la ko waxee ci point de presse bi nga xam ne biñ biñ biñ na suba dañ ne fanaan si nañ bu ñu xëyee dinañ dem dinañ dinañ dinañ dinañ ànd ak Ousmane Sonko. donc ña fa nekkoon ca biir jumaa ja doonul woon ay taalibe te nga dégg lañ doon yëkkati am na ci ñoo xam ne ci biir jumaa ja lañ doon wax gatsa gatsa. astafurlah maa la wax loolu. maa ko dégg maa ko dégg. donc nga xam ne ak yenn audio yoo nga xam ne. ci seeni biir panel la rëbb fuyute ñëw ngay dégg nit ñoo xam ne dañ ne université bi nga xam ne nii sëriñ bi moo ko defoon sax nañ ko démoli. mais lii lépp est-ce que jubluwu leen si diaboliser Ousmane Sonko. ñun jaba diaboliser wuñ ko jaxase koog sëriñ si. ñun diaboliser ko jaxase wuñ koog sëriñ bi damay santaat sëriñ Touba ci jëmmam kuy ñëw ci jëmmam nay ñëw ci sëriñ Touba rek léegi ñu xam kan mooy Ousmane Sonko parce que sëriñ Touba moo mel noonu képp koo xam ne ab taalibe nga ngay mubboo taalibe gi di ñëw da lay feeñal yaay kan na ñëw rek. léegi sénégalais yëpp xam kan mooy Ousmane Sonko. d' accord jërëjëf euh, Mara Diop euh, mu nekk responsable politique euh, APR ci commune bu Ndindi département bu Diourbel nekk membre ci conseil économique social environnemental moom la ñu invité tey ci rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h léegi Mara Diop. jàpp nañ datu élection yi 25 février 2024 incha allah yéen. Euh, Mara Diop est-ce que natt ngeen bu baax a baax a baax a baax mbirum ñetteelu candidature bu président Macky Sall yan jafe-jafe la mën a indi euh, ci réew mi. Euh, question bu am solo nga nga wax ma di la ci rectifier du ñetteel bi candidat ñaareel bi candidat bu cinq ans la muy deuxième quinquennat. ndax it waaw deuxième non moom la moom moom la sax moom la sax moom loolu moom waaw d'accord bu la neexee nga interpréter ko troisième candidature mais deuxième quinquennat moom la tudd ñaareelu mandat bu cinq parce que ci ah, ci ci ci constitution bi kenn mënut def ñaari mandat yu yu cinq def nañ benn mandat bu cinq ans dese nañ beneen mandat bu cinq ans moom la ñuy wuti nii suñ ko amee taxaw ñaanal Sénégalais yi dem wuti leneen lii ngeen waxoon 2019. moom moo moo nekk it loolu la ñu wax waxu ñan ñoo ko waxoon 2019 lan ah. nga ma falaatee mhm. moo nekk sama ñaareel ak sama mujjantalu mandat pare naa ci. dama lay wax ne la constitution du moral. constitution mais est-ce que déggoon nga président ko dégg naa ko. Ah, mu wax ko constitution dama la. waa léegi dégg naa loolu yëpp ma wax la mais ah, constitution. constitution du moral. maanaam ay wax nii ñu naa ah Abdou Khader sama xarit nga na ñu toog waxtaan nangam ak nangam loolu loolu du constitution constitution dañu koy bind. maanaam waxi président Macky Sall yow fële nga ko. déggoo li ma la wax du moral. constitution dañ koy bind noir ñu toog voté ko ay loi ñu ne lii la ñuy sart yii la ñuy teg ci réew mi sart yooyu ku ko bëgg a bafoué yaay jàkkaarloog réew mi man dama jàpp ne Macky Sall bu présenté wut candidat mooy constitution bi da koo génne sànni na le constitution bi du moral ñun suñu parti bi ñu dajee toog am ay juriste am ay ay ay ay constitutionnaliste hmm. dañu toog xalaat ne Macky Sall am na droit président présenté waat parce que benn mandat bu cinq ans la na beneen mandat bu cinq loolu moo waral ñun ñu dem ci Sénégalais yi dañ li fi président Macky Sall def ci wàllu infrastructure li fi président Macky Sall def ci dimbale askan wi li fi président Macky Sall def ci taxawu njaboot gi dañu naan dañ koy présenté waat dañ ko natt bu baax nag natt gi nag du caagee ko de ñu bari dañuy lëre ñun ci sunu biir mën nañoo jàppante élection département wala élection locale ñëw kenn ku ne beru dem def sa la ngay def mais bu élection présidentielle ñëwee on a une seule et unique candidat muy le président Macky Sall ñëpp dañuy rangé wu ci ginnaawam. mais euh, Mara Diop yéen 2000 dafa loo xam ne moral sax mayu ko <coughs> te yéen 2000 2011 2012. mbirum troisième candidature Ablaye Wade dafa taxoon ñu bari faatu ci président Macky Sall bi mu nekkee ci bopp réewum Sénégal. même bi muy campagne 2012 waxoon na ne mbir mi moom dina fi jeex. Mhm. bi mu gañee wax ne danañ si indi solution defar référendum bind référendum moom président Macky Sall ak Ismaïla Madior Fall ñoo toog fi ñuy toog ak seeni i constitutionnaliste ak seen i juriste conseil juridique ñu bind ne ñoom liñ def ci con ci ci ci ci eh, ci référendum bi liñ ci tënk. bindee nañ ko noo xam ne amul prox ndoll amul commentaire amul interprétation mais kenn mënul def ñaari mandat yu tegaloo Ismaïla Madior Fall wax ko mu leer président Macky Sall wax ko mu leer président élection ñëw mu ne 2019 bu ko falaatee pare na ci maanaam. déggoo li ma la wax li nga wax lu wér kéng la loolu lu ma dindiwut ñaari dërëm mais nangul ma ne constitution bi du moral loolu nga wax moom la ñu bind ci tex yi. ne nit mënut a def ñaari mandat yu cinq ans yu tegaloo ñaari mandat yu cinq ans. ñaari mandat yu tegaloo ñaari mandat yu cinq ans. non xanaa moom juróomi at. problème bu deuxième moom ñaari mandat sax déggoo déggoo déggoo fekk ñaari mandat yi déggoo li ma la. nombre de mandat déggoo li ma la. Ah, fekk mais bi ñu bi ñu ñëwee dañoo régir dañoo dañoo defaraat constitution bi. bi ñu defaraatee constitution bi tëgg ko woo société civile bi yëpp ñu ñëw ñu woo woy politique yëpp ñu ñëw ñu ne lii la ñu bëgg a tax ñoom ñëpp ñu d'accord ci buñ ci d'accord ñu yóbbu ko. ñu bind ko teg loolu yi ñu bind teg moom la mag président Macky Sall di appliqué. yéen yéen yéen fi ngeen fekk deux mandats. déggoo li ma la wax fi lañ fekk deux mandats yooyu. dañ ko changé mais déedéet fi lañ fekk deux mandats yooyu mais deux mandats yooyu deux mandats yu cinq ans yooyu néewul dama lay fàttali keroog bi ñuy def référendum yi keroog bi ñu ci yeggee ba président Macky Sall war a prés war a présenté waat mais bind na conseil constitutionnel ne leen dama bëgg a respecté sama deux mandaa yu cinq ans yi may leen ma ma wàññi sama mandat bu sept ans def ko muy cinq ans. yaa ngi koy fàttaliku bu baax. Mhm. président mak Sall conseil constitutionnel da koo tontu ne ko sa mandat bu sept ans bii bokk ci dañ ko da nga koo war a exécuter mais bu ñu fàtte nag loolee le président Macky Sall di di di wéyal ba léegi. la mu waxoon ak sénégalais yi moom la respecté moom lay doxe fo mu jëmee woon sénégalais yi foofa la la mu gëmoon moom la dox ba tey ndax keroog ba ñu toogee mu bind conseil constitutionnel ne leen damaa bëgg a respecté sama mandat ñaari mandat yu cinq ans yi sama mandat bu sept ans bii damaa bëgg ñu wàññal ma ko defal ma ko cinq ans. kon kon président Macky Sall est-ce que noxul sénégalais yi. mënut a naxut sénégalais yi parce que. déedéet Abdou Khader naxul sénégalais yi ndax xam nga lu tax naxul sénégalais yi fa mu toll woon ba mu bëggee def ñaari mandat yu cinq dafa leeral fa nga xam ne foofu la ñuy la la sénégalais yi tënku daan moom la moom la moo ñuy parce que nag bul fàtte ne ñun woy politique yi bu dee fa ñu war a atte sunu kaamil ak suñu bible mooy constitution bi ci constitution bi rek lañ mën a tënku. d'accord constitution boobu ñuy tënk lam cay lañ cay doxal moom la ñuy appliqué. léegi euh, xam nga Mara Diop président Macky bi ñu defee référendum bi bi pare. bañ ne def nañ référendum bi ba pare ba mbir mi tëgg nañ ko ci wàllum yoon ba pare ba teg ko nële 2016. 2016 mhm. ba 2017 2017 ba 2018 2018 ba 2019 président Macky Sall si la taxaw nag ne constitution bu Sénégal bii lim ma may mooy su ma amee beneen mandat pare naa ci mais président loolu la waxoon nag. wax dëgg yàlla te yéen léegi est ce que jàpp ngeen ne sénégalais yi danañ ko nangu même bu loolu passé est ce que jàpp ngeen ne sénégalais yi danañ ko nangu. gis nga sénégalais yi gëm réew mi. waaw ah. bëgg réew mi. waaw ah. xalaat ne réew mi seen avenir ëllëg. ñi ngi ci wetu président Macky Sall te dina dina nangu lu raw lu raw deuxième quinquennat bi. ñeneen ñi nag déggoo li ma la dina nangu lu raw parce que du ma ne ñun ñëpp ànd nag tout est tout est rose kenn du ko wax du ma ne Sénégal yi li dama ne li ci ëpp. da nga xam ne tey jàpp naa ne ñu conscient la tanga xam ne jàpp naa ne seen ngëm-ngëm ci réew mi ëllëg jàpp nañ ne war nañ ko mën a sauver dinañu nangu lii. mais yéen Mara ngeen war a jóge ci bopp réew mi 2024 ngeen di wax ay ay euh, programme 2035 ak euh, yu demee noonu est-ce que bëggu leen a yee fitna ci réew mi. mënuñu yee fitna ci réew mi. ñun mënuñu yee fitna ci réew mi xam nga ñan ñoo bëgg a yee fitna ci réew mi ñi nga xam ne gis nañ ni constitution bi parce que ñoom ñi ñëpp di ko wax bërki démb boo leen demee seeni vaar ñu ngi fi Barthélemy Diaz lu mu wax président Ablaye Wade bi ñu xeex ay politique lañu woon waaye nag wax dëgg yàlla amoon na droit deuxième quinquennat deuxième mandat bu Ousmane Sonko mii ngay tudd lu mu wax man xeexuma defuma lenn ku ciy xeexit sa bopp waaye Macky Sall am na bu bu deuxième quinquennat ma am na am na ci droit donc kon loolu nag léegi lan moo fi changé ci diggante bi kaddu yooyu ñu wax ci diggante bi lan moo fi changé. kon yéen Macky mooy seen candidat. ñun ah, ko kan lañ bëggaat mu nekk suñu candidat ñun amuñu plan. dama dama koy déggoo li ma wax waa d'accord ñun waa APR ci la ñuy commencé ndax tey. APR mooy mooy mooy mooy locomotive bu Benno Bokk Yaakaar mooy cerveau Benno Bokk Yaakaar d'abord APR mooy daje toog waxtaan ne kat ñun suñu candidat président Macky Sall la fa ñu jëm nag. ñun ba ñu toogee ba jàmmandoo ñu waa APR jàpp nañ ne moo noo war a doon suñu candidat amuñu plan A amuñu plan B. Macky Sall mooy suñu candidat. mais yéen dëkk bi ni mu méttee ni askan bi ni ñu nekkee si ay jafe-jafe sénégalais yàgg a bañ mbirum troisième manda yéen ngeen taxaw ne da ngeen def troisième euh, manda ak osman Sonko mi nekk ci seen wet euh, ñu gis ne dañ ko bëgg a xañ ngir mu bokk ci élection yooyu yii yëpp soo ko boolee tey ndax Sénégal mënut a dugg ci kaaw. mënut a dugg ci benn kaaw xam nga ñan ñoo jàpp ne réew mi dafa nekk ci jafe ñi nga xam ne dañuy woddoo seenu làmmiñ loolu suñu noppee ñoom dañuy rafle tey dama jàpp ne tey li président Macky Sall def ci réew mi nga dem ba ca àll ba te parce que réew mi centralisé wutul ci Dakar réew mi nekkul ci biir centre Thiès réew mi nekkul ci biir centre Ziguinchor réew mi ba ngay dem ba fongale mi réew mi foofu la nekk tey boo wàccee ci base bi nga gis ne tey boo wàccee ci wàllu wàllu wàllu électrification nga gis président Macky Sall li mu ci def kenn defu ko ci mhm. dafa multiplier li nga xam ne nii Senghor defoon na ko fi du Diouf defoon na ko fi Ablaye Wade defoon na ko fi mu triplé ko ci raccordement monde rural courant monde rural bi nga dem ci CMI bi noonu nga dem ci euh, éducation école yi nga gis ni mu ci def école yi xale yu bari ci biir seen commune léegi la ñu jàng yi njëgu yi ak baykat yu sonn yi déggoo ñu ngi leen ci jàppale njëgu cher yi c'est tout à fait normal njëg yi dina cher parce que ñun Sénégal produit li ñuy li ñuy consommer dañ koy jëggaani boo gisee li ci état di def mënoon na gën a cher tey te boole kook nag ñu jóge ci ay difficultés yu métti am na ci réew yoo xam ne boo demee foofa ba ñu la añee du ñu reer moo gën a métti Sénégal tey nga génn jur guerru Ukraine bi ngém ci Covid bi loolu yëpp ñaar yooyu yëpp bu dalee ci suñu bopp li ci président mac Sall def kenn mu mënut a xalaat ne lii tey buñ benn problème nag am nañ ko ñun muy problème mu communication léeraluñu askan wi dëgg dëgg fi président Macky Sall jëlee réew mi ak fi mu ko jëmee te foofu lañ toll nag. dama jàpp ne suñu rassemblement yi nit ñuy wax dañoo toll ci communiquer ak sénégalais yi wax leen dëgg-dëgg li nga xam ne président Macky Sall moo ngi mais nangu nga ne sénégalais yi ñoo ay jafe-jafe. mais mais li ma wax nee naa la tout n'est tey boo dikkee di nga gis ne fii am na lu fi manqué dama koy nangu damay nangu ne am na ay ay ay failles yoo nga xam ne am na mais nag 80 pour cent des besoins du Sénégal. président Macky Sall satisfait na ko. d' accord euh, tey ku mel ni Alioune ku mel ni Guy Marius Sagna wax nañ ne mbirum troisième mandat bu président Macky Sall bii mën naa indi guerre civile ci réew mi li ko loolu ñoom loolu la ñu wax te aussi Mara ñun gis nañu ne ñi ànd ak président Ousmane Sonko ñoom nee nañu du bàyyi. kenn di faagaagal usman Sonko comme niñ faagaagale woon Mamadou Dia euh, te ñi nga am ne ñoo ñi ngi ànd ak président Macky Sall waa benn bokk yaakaar yéen ne ngeen di ngeen def faire face pour défendre constitution bi ak république bi ak président Macky Sall yéen bu ngeen jëlee position boobu ñaan nag Ousmane Sonko jël position bi est-ce que li Alioune Tine wax ak Guy Marius Sagna nag guerre civile mën naa am ci Sénégal mara d'Italie est-ce que loolu mënu ko firndeel. ñaar ñooñu nga ma mujj wax nga ma njëkk a wax de primes Guy Marius Sagna Alioune ay chasseurs de primes lañ maanaam tey xalaat nañ ne ñu ngi inciter nit ñi pour bëgg opinion internationale bi di leen doof doole ñu naan dëkk ba dana tàkk dëkk ba dana tàkk gis nga fii force reste à la loi. nit munu fee dëkk bi beneen bi ci des muy wàllu waa os kër Ousmane Sonko yooyu nañu fexe seetal seen mbir seen i seen i seen seen i candidat mu mën a dem ci terrain bi dem dem dem dem dem jaamaarloo ji su seetut yoon munu ko koo may ñun nag suñu devoir waar ñu ne boo dee campagne ba jotum réew nga yot ab république la nga mën a def mooy téye sa république boobu sàmm ko ci côté bu ne nag ba doo nangu nit ndax damay faral di wax ne maam Abdou daf daa wax ne boo yoree mbi di ca tedd di ca teral di ca teral say askan lu nit ju bëgg mu yàqu na la jaral lu ko raw pour mu defaru gis nga foofu ñu toll li nga wax dëgg wér kéng la lu mu leen jaral ñun pour ñu yàq réew mi dinañu jaral lu ko raw pour ñu défendre réew mi. mais waaw mais yéen chaque jour da wax force restera à la loi mais bu ñoom Sonko wàccee ci mbedd mais xale yi kenn du leen gis keroog Lat Diop Lat Diop dégg nañ ko midinu Pikine ba lu fa Lat Diop waxul amul te keroog bi Ousmane Sonko demee géej waaye takk neeru Lat Diop sax kenn gisu ko fa. xam nga xam nga xam nga tolloogun ci jàmmaarloo dëgg-dëgg. ah tolloogu leen déedéet. état bi mooy dox mooy doxal ay yëfam bu ñu wàccee ci terrain bi politique candidat yi tëng bu boobaa la ñuy xam ñan ñooyaan. yéen sañ ngeen a ak ñoom. lay la bu ñu wàccee ci terrain bi laa wax. war a politique ñoom ñu war a la ñuy xam ñoon ñoon ñooy ñan Lat Diop la muy wax tolloogu ca fi mu toll nii état bi moo jël ay responsabilités am force de l'ordre bi jël ay responsabilités pour réglementer réew mi. foofu lañ toll ñoom nag danañ leen ci jàppale parce que it duñ leen fekk ñoom ñuy war a sàmm la ñu yor ba pare ñu di ko yi ñoom kay ñoo fekk la ñu war a sàmm la ñu yor ñoom ñu di ko bafouye waaye ñun foofu lañ toll mais nag fu campagne ubbe ñu war a toog jàmmaarloog ñoom kenn ku ne xam na ka man sa papa. mais dañuy gis na Ousmane Sonko fu dem police wala gendarmerie topp ko euh, loolu euh, ci lan la bokk. xam nga Ousmane Sonko dafa ubbi ay conflits yu bari kenn ku ne jàmm saaga na la. kenn ku ne wax na la lu ma tooñ na ma tooñ na keneen tooñ na keneen léegi nag te réew mi am na ci ñoo xam ne tey bëgg nañ sax bu tey ku ku leen tooñ xamuñu duñu duñu ndax dañuy bëgg a jaamaa fayonteeg yow raison pour laquelle nag sécurité Ousmane Sonko force de l'ordre tout à fait normal que ñu sàmm ko. loo jàpp ne moom la si jublu. sàmm ko rek ndax li mu li. Euh, da ngay jàpp ne keneen mën naa jóge sa àll ba def ko dara. mën naa nekk parce que ñi mu tooñ dafa bari Ousmane Sonko ñi mu tooñ dafa bari. tooñ nag tooñ nag ku dëkk ci réew mi tooñ na ku génn réew mi tooñ na keneen ak keneen ak keneen donc force de l'ordre bi c'est tout à fait normal ñu kaar ah yor kaaraange Ousmane Sonko lu ko loolu war na mën a loolu loolu loolu lu mën a nekk la. d'accord loolu lu mën a nekk la. waaw euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen a ngi déglu rajo réew mi euh, FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité Mara Diop mu nekk responsable politique APR ci commune bu Ndindi nekk membre ci conseil économique social environnemental Mara fan yi nga xam ne tey moom la ñu génn dañu gis benn rapport cour de comptes boo xam ne yenn ci ay ministère wala ay ministères yoo xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma mbir moomu yóbbu nañ ko fi mbaxana doone benn ndax jàpp nga ne tey yoon dina ci def liggéeyam ni mu waree. waaw loolu maa ngi ciy le président de la république di ko sant ca la mu war a waxoon ne réew mi dañu koy yore ci yoreen woo xam ne nii képp koo xam ne nii jéggi na ca lu doonul yoon dana la teg ci yoon ci loolu la nekk ndax tey ba rapport ba génnee euh, euh, looloo waral sax rapport bi waa IG waa waa waa cour des comptes ñu renforcer leen jox leen ay moyens wutaat leen ay emploi pour que ñu mën na di gestionner bu baax a baax a baax ki nga xam ne jox nañ ko ca kii bu neexutoon président loolu du am. pour mu leer bu bu neexutoon président loolu du am. parce que it mooy état la c'est lui le président de la république te donc ci ci démembrement am la bokk donc kon bu jëlee cour de comptes renforcer ko par des moyens ñu mën a recruter waat ay nit ñu mën a lool tam tam xool tey liñ la dénk lan ak lan moo ca ne ba rapport ba génne it ñu wëlbati ko publier ko. donc jàpp naa ne dañ ciy remercier président de la république beneen bi ci topp muy gis nga suite bi fi mu toll tey jàpp naa ne procureur de la république àdduna ci wax na ci lem ca war a wax lépp kon donc jàpp naa ne lu avancé lay doon képp ku ci xam ne liñ ciy sàkku sénégalais yi di ko sàkk ñu ne suñu coalition Benno Bokk Yaakaar duñ ci nëbbu kenn képp koo xam ne ay am na ci nag loo xam ne ay ay ay orientation ak i kii lañ lañ wax ne ñoom waroon nañ ko def te defuñu ko ay jubbant mais taxawu gun kenn ñu épinglé ci kenn ne diw mii kat sàcc na ci lii gisaguma ko ci donc foofu lañ toll président de la république dina ci jël ay mesures ay ay ay ay képp koo xam ne yoon teg na ko ci wax na premier ministre ne ko nag suivral ma loolu lépp loo xam ne yoon teg na ko ci dana ko ci indi. léegi euh, dernière question bi jëm ci mbiru Ousmane Sonko mooy euh, Mara Diop ñun euh, dañu gis ne bis li ngeen seen bëgg-bëgg yéen nguur gi mooy fexe ba. Ousmane Sonko du nekk euh, candidat ci élection présidentielle 2024 mais man dama jàpp ne euh, askan bi ñenn si ñoom ak ñi ànd ak Ousmane Sonko euh, tey bu ngeen ko bëggee xañ mu bokk ci yooyu la élection Sénégal mën na nekk si jafe-jafe est-ce que yéen ni ngeen koy waxee est-ce que yombul yombul kan yéen da ngeen dem daal élection président Macky Sall dafa war a dem bokk waaye Ousmane Sonko moom warut a bokk est-ce que loolu yombul ci waxin. ñun waxuñu ne ba tey ñun suñu bëgg-bëgg lañu wax ci président Macky Sall ne dana bokk ci élection yi. Mm-hmm. newuñu force day bokk suñu bëgg-bëgg ñun suñu parti mooy que président Macky Sall dina poser candidat dinañu ànd ak moom ci poser candidat ba ñoom it loolu la ñuy wax duñu leen ko interdit duñ leen ko tere mais nag dafa am fu ñuy àttee foofee nuy àtte muy constitution bi buñ ca yeggee bu validé candidature président Macky Sall amul ku yàlla bind nag laa wax ku yàlla bind ku ko mën a empêcher mu dem élection. beneen bi ci des bu empêcher Ousmane Sonko pour mu bañ a dem élection amul ku yàlla bind ku ko mën a tee tax a dem élection te loolu dafa am foo xam ne buñ ci yeggee. dëkk bi am na ñu ko yirif ñoo xam ne nii tey ñoom ñooy taxaw assumer ak responsabilité dëkk bi jàpp naa ne am na lu fi gënoon a jaar lu fi gënoon a lu fi gënoon a métti ay année 88 am na lu fi xewoon loo xam ne ñaanuñu yàlla moo xew ko looloo gënoon a métti téeméeri junni yoon ay force de l'ordre jaamaarloo ba ay wayu bakkan yo loolu ñaanuñu ko yàlla mais nag nañ xam ne réew mi ca 88 googee loolee fa amoon tey ak lu raw kaaraange gu raw loolu mi ngi fi d'accord Mara fan yi ñu génn sa Thiès dégg nañ Idrissa Seck wax kàddu yoo xam ne ñun ñu ko déggee mooy dafay wax président Macky Sall na ko bul def beneen mandat ba pare na sa génnin euh, rafet euh, ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am dégg naa ñu bare ñu ngi ciy wax euh, man membre du conseil économique et social bokk. bokk ci fii Idrissa Seck jiite. mais nag parti bi dafa am ñun suñu parti am na conférence des leaders am na am na am na am na am na secrétaire national exécutif. man bokkuma secrétariat national exécutif jàpp naa ne Idrissa Seck la mu wax damay sant bu baax président Macky Sall parce que moom moo taxawoon Idrissa Seck yëkkati kàddoom ne gis-gisu président Idrissa Seck ab Macky Sall kat jam ñaajo la yam président Macky Sall ñëwaatee Thiès moom su ko neexoon du ñëw ca ca ca ca ca ca ca ca parce que intéressé wu ca ndaje politique du ndaje politique déet du ndaje politique parce que foofa ah, démembre waaw ba bay boo ndax démembrement état yëpp ñoo fa nekk foofa réew mi lañ doon waxtaane donc am ay man déwuma fa maa ngi nii damay politique te déwuma fa ñeneen dañuy politique te déwuma ñu fa da nekk ci biir dëkk ba ñañ fa yeew bu mooy ña xam ne dañoo yor ay ndombay tànk am lu ñu représenté ci dëkk ba que ce soit nga bokk ca parce que bu doon najam politique maire ba du ñëw toog d'accord donc bu doon ndajem politique am na ay président ay maire yoo xam ne ànduñoo ñun ña nga fa toog. d'accord donc Idrissa Seck ñëw toog fa yëkkati doom wax ne moom mi ngi regretté lu bari ci ma président Macky Sall quoi qu'on dise bu ma jàngatee wax ji li ñu ciy def nag ñaan gamu ñaan nag ñaanal na ko président Macky Sall foofu la toll. man damay bàyyi ba mu gisaat leneen loo xam ne di tax bokkuma ex secrétariat exécutif xaw ma la muy waxtaanee président Macky Sall. jàpp naa ne daal ndax la jàpp naa daal seen mburoog soow tey président Macky Sall wàcc na wax na ko nee na mburoo ak soow mi mi ngi dox ba tey ca loola laa jàpp ci kaddu président Macky Sall leneen la ca des nag muy diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck ñoom ñaar la ñuy waxtaan Mara Diop xamu ko. est-ce que tey bu président Macky Sall présenté woon ndax jàpp nga ne alliés yi danañ ko ko yombal ñu si mel ni waa AFP ndax AFP gis nañ ko ko si mel ni Aliou Sarr ma ngay taxaw fa nekk ñooñam naan euh, ay ñooñam na Aliou Sarr nekk candidat parti socialiste fan yële dégg nañu Abdoulaye Wilane li mu wax diggante bi nag euh, daw na si d maa waxoon waxeet peut-être. Euh, non non maa. xëy na gis-gisam la wax. mais parti ba ba mu dajee. la mu wax la loolu loolu lay ànd. allié ba muy wax moom. moom moom moom Wilane ba muy wax gis-gisam boppam la wax. en tant que en tant que mais parti bi ba ñu dajee. moom parti socialiste waxuñu loolu. waaw léegi parti socialiste muy AFP muy euh, réew mi waxaguñu officiellement que ne Macky Sall euh, moom lañ bëgg moom lañ bëgg mu moom lañ bëgg mu nekk seen candidat 2024 est-ce que jàpp nga ne alliés yi danañ ko yombal. naa d'accord yi waxaguñ. te dinañ wax. bu soobee yàlla incha allah rabbi alliés yi ñoom ñëpp kenn ku ne ci dina yëkkati kàddoom wax gis-gisam keneen ku ci wax gis-gis beneen ba dañ la koy nangul waaye nañu jàpp ne alliés yi nañu jàpp ne population sénégalais gii dëgg la coalition bi gëm nañ ko ñu ngi koy doxal mais Macky Sall la ñu àndal te it maa ngi sàkku ñoom ñëpp kenn ku nekk ci na yëkkati kàddoom wax position mu leer dafa war a leer nag fi ñu jëm nii. wax dëgg yàlla war naa leer nag. kon jàpp nga ne war nañoo wax. war nañoo wax dama jàpp ne jot dafa jot. pour ñoom ñëpp parce que kenn ku ne ci li nga président Macky Sall defal bi ñu toogee ba léegi bu la bàyyi woon sa sa parti tas na amu ci ma dem te ñëw ku ci man di doon nag su la bàyyi woon sa parti tas na kon fi ñu toll nii ñun ñu taxaw ne ñun waa APR war nañoo positionné suñu candidat ñoom nañu positionné seen candidat wala ñu ànd nag ñun. war nañoo wax lu leer war nañoo wax lu leer man damay sàkk loolu. d'accord léegi euh, Mara Diop yow ñu nommé la conseil économique social environnemental euh, nomination boobu nan la ko waa commune euh, Ndindi dundee. waaw waa commune Ndindi nag dama leen di sant bu baax di leen gërëm ndax man jàpp naa ne surtout département Diourbel. ak benn kuréel goo xam ne suñu kuréel la muy les républicain maa ngi leen di sant ñoom ñëpp kenn ku ne ci di leen gërëm parce que keroog bi ñu nomination bi amee toog naa sax lu mat ab diir ba ay midi lay doogoo xam ne man nome nañ ma donc ndindi gépp ci niñ ko dunde mooy président Macky Sall delloowaat na ndindi ak ak yelleef ga ñu am delloowaat na cër bi nga xam ne ndindi am na ko ci département de Diourbel da noonu nangu ko woon mais coalition day demee noo xam ne tey à chaque fois da nga bëgg am sa yéene bëgg am sa gis-gis bëgg am sa kii mais du la ko permetre loolu ñu dañ ko koy nangul donc kon la nga xam ne nii tey xam nañ ne xel ne ndindi am na ko ci wetam dellu jox na leen ko ba mu mat sëkk di sant ndindi gépp ndax wax dëgg yàlla dañ ci ànd ak ñun ba ñuy door di politique ba léegi tey jàpp naa ne lii ñu ñu defal ñoom la ko président Macky Sall defal reconnaissance boobu ñoom la ko defal waaw mais gis nañ ne euh, Diourbel aussi ci commune bi daam Diop dindi nañ ko bëri na ay directeurs généraux aussi yoo xam ne ñoo ngi fa nekkoon dindi na leen poste loolu tamit euh, noo ko gisee waaw ni ma ko gisee nag wax dëgg yàlla saanuma euh, ça me fait mal am na ci côté boo xam ne politique dafa ànd ak nga nga nga ñu di la ñu di la ñu di la ruus ñu di la jox responsable kenn ku ne xam ne daam Diop au niveau de département de Diourbel bu ci dama koy faral di wax bu ci politique gu département Diourbel bu ci Dame Diop génnee jeex na dara amatu ci parce que boo demee ci biir département bi moom rek nga ci gis mu dugg ci biiru commune fukk yu mu romb dana la dana jaar saw tur jaar saw sant donc coordonné département bi nag pendant douze yi yëpp ñu génn c'est lui départemental Diourbel gépp nangul ko ko ñu ci bari bokk ci département bi commune rurale yi moom base politique am da ko daa gagné à chaque fois ndax commune yi ci bari tey élection yi ñu génn Dame Diop la ñu xam na moo tax moo gagné département bi donc kon loolu moom it mu nangu ko ndax nee na man àndewuma ak président de la république ay ndombay tànk dama gis gis gisam gis vision am gis xalaatam xam ne war na mën a yor réew mi war na mën a jox réew mi ma ànd ak moom ca loola loola it dañ ko ciy sant ci fidélité bi mu am ci président de la république am na neneen nu mu doon mel man président laa gëm. mais frustré wul non non frustré ndax kero ba ko wàccee kero ba mu man ma tëgg sama meeting moom boo présider meeting bi. leeral jurbel gépp ne leen li ma àndee ak président Macky Sall gëm-gëm bi ma gis ne war naa mën a jàppale réew mi foofa laa ko gën a nawem ndax man kenn ku ne xam na sama diggante président de la République man aw ma ay ay plan A plan B plan C déedéet sama benn plan président la képp ku may suturaal ci département Diourbel di ànd ak yow damay xam sa loyauté ak président Macky Sall su ma xamul sa loyauté ak président Macky Sall yaag muus muy daaw laa laa laa yemal. d'accord jërëjëf Mara Diop ñu lay sant di maa ngi leen di sant di leen gërëm di la remercier di la euh, wax ne vraiment fierté de la région nga di wax ne nag suñu deuxième candidat moom ñu ngi ci ba géej gi far. d'accord jërëjëf euh, Mara Diop mu nekk membre ci conseil économique social environnemental nekk responsable politique euh, APR ci département bu Diourbel commune bu Ndindi ñu koy jaajëfal bu baax a baax am mbégteeg kontaan ci euh, émission bi Abdou Khadre Seck moom ngeen ci àndaloon comme niñ koy ànd ak yéen bu jot bu 15 jotee jàpp 16 maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi bi mbokk jàmm